mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu dellu siwaat ci sunu jataay bi nga xam ne ci lanu baaxoo àndak ak fii ci 24 actu seen émission bi ñu tudde madinatu ilimi ñu ci ànd ak yéen ayu bis nekk tey ji ñu dellu siwaat ci jataay bi fa yéene ci àndak ak yéen ci benn tomb euh, ginnaaw bu nu santee ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp ñu gërëm leen ñaanal leen yàlla yiwu yàlla dotteeku ci ñoom Euh, tey jii nag ñu fa yéene waxtaane benn tomb boo xamante ni bu am solo la doon yàlla mi nga xam ne moo bind moo bind lépp bi mu bindee ba noppi nag dafa tànn yi nga xam ne ñoo ko ci gënal am na ci yoo xam daf caa def ay lim bi mu leen limee ba noppi mu tànn ca dara lenn mu tànn ca dara ñu gënal ko ci yenn yi nekk ci àdduna yenn yi nekk àllaaxira ay yàlla mi nga xam ne moo bind moom moo bind ba noppi tànn yi ko gënal yi nga xam ne bind na leen mu ne diw sàngam walla mbir sàngam moo ko ci gënal moo ci gën a kawe mbir yooyu nag lañ leen bëgg am yennat yuñ leen ci wax incha allah rabbi xam ngeen ne yàlla sunu borom de moo bind asamaan moo ko bind bi mu bindee asamaan mu def ko juróom-ñaari asamaan la ko def mu tànnaat ci asamaan jooyu asamaan ji ko ci gënal mooy asamaanu juróom-ñaareel moo ko ci gënal mu bind juróom-ñaari asamaan tànn asamaani juróom-ñaareel mu gënal ko ci xam nga mbir yi dafa mel ni day doon fadla su taxsiis mbir yoo xamante ni moom kenn doonu ci dara yàlla moo ko tànn rek jël loola mu jagleel ko li mu gënal ko lële mbir yi mu gënal ko lële kon jàpp naa ne yàlla moom moo yeyoo lool yàlla moo bindu juróom-ñaari asamaan asamaan juróom-ñaareel gënal ko ci sunu borom bind mbooleem ajjana yi moom tamit mu doon juróom-ñaari ajjana wala juróom-ñaari bunti ajjana mu bind ajjana yi mu doon ay ajjana yu bari waaye sunu borom jël firdawsi mu gënal ko ci mooy ajjana yi firdawsi moo tax jullit bi ñuy ñaan sunu boroom yóbbu ko ci ajjana ji gën a kawe mooy ajjana yi firdawsi mooy ajjana ji nga xam ne sunu borom bi mu bindee ajjana yi ajjana jooju moo ko ci gënal kon yàlla nañ suñu borom yóbbu bu nu ci sunu njulit faatu ci diine lislaam yàlla nanu yàlla yóbbu ci àjjana firdawsi yàlla moo bind malaaka yi malaaka yi moo leen bind malaaka yi nga xam ne moo di jibril ak moo ko ci gënal mu bind yonante yi tamit ñi nga xam ne moom la ko waxee yonante yàlla yi yonante yi tuddi leen ulul asmi waaye ñi ko ci gënal mooy ibrahima ak yonante yàlla muhammad muhammad moomu sax mu tànnaat ko ci biir mu gën a laat ko ci malaaka yi kon sunu borom moom moo yor li nga xam ne mooy tànn tànn yoo xamante ni li ko ci gënal moo ko tànnaat yàlla moo bindu doomu aadama yi bind leen def leen ay doomu adama bi mu noppee mu tànnaat ci moom i tamit tànn ci yonent yi tànnaat ci ñoom ñooñu tamit ñi nga xam ne ñoo ko ci gënal mu di ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñi gëm yàlla ñu gëm yàlla ñoo gënal yàlla ci mboolem li mu bind bi mu tànnee doomu aadama yépp ñu bind leen ñu gëm yàlla waaye mu jëlaat yonante yi teg leen ci ñu gënal ko waaye mu jëlaat ci yonante yi ulul asmi mu jëlaatee ulul asmi mu jëlaat ci ñaar ñi nga xam ne ñoo ko ci gënal muy Ibrahima ak yonante bi sallallahu alayhi wa waaye mu jëlaat yonante bi sallallahu alayhi wa mu féete leen kaw ñoom ñëpp mu gënalaat ko ci kon kon sunu boroom noonu la defe ay mbiram mu tànnaati tamit bindaat li nga xam ne moo di borom bind li nga xam ne tamit moo di bis mu tànn bisub ajjuma mu gënal ko ci ak bisu arafa bis yooyu nga xam ne mooy bis yi ajjuma moo gën ci bis yëpp ci bisu jullit yi ci bis yi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy ànd bis yooyu sunu borom daf cee tànn biss bi ci gënaat muy bisu ajjuma mu tànnaat ci bis yooyu arafa bisu arafa ci at mi bis nga xam ne yi bokk na ci bis yi ci gën moom tamit muy arafa xam ngeen ne arafa taxawaay boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci hadiisu qudsi nee na sunu boroom day yabal malaaka yi ne leen gis ngeen sama jaam yele waaye ñe leenu taqe ne leenu fundoone ak seen taxawaay bi ak seen toroxlu bi lan moo tax ñu taxaw fa ñu ko ah xanaa màggal la rek yàlla ko ah déedéet gisuñu la de xanaa dañ laa dégg rek mu ne buñ ma nan la ñuy def ko ah ñe da buñ la gisoon dinañ ki ñi nga xam ne seen toroxlu ba góor ña noo woddu jigéen ña muuru ñu takk rip sol lu weex ñoom ñëpp àndandoo tàllal seeni loxo di la ñaan mu ne leen tey ji da xamal ne ñoom ñooñu jéggal naa leen te tey ji lu ci waay ñaan rek dinaa ko nangul yàlla kon dafa bëgg bis boobu daf ko fonk bi mu bisu arafa yàlla moo bind euh, li nga xam ne tamit mooy suñ borom moo bind tamit suuf si li nga xam ne moo di Makka ak Madina moo ko gënal ci dindi suuf yëpp dindi suuf yi nga xam ne moo am ci àdduna yàlla yi ko ci gënal mooy Makka ak Madina mooy yi nga xam ne moo ko gënal te loolu xanaa yow di nga laaj ne waaw yàlla mi nga xam ne moom moo bind suuf sépp moom fépp lu tax fële gënal ko fii ak fii gënal ko yàlla loolu mbirum boppam la mooy seet lu ko neex mu def ko te doon a wax ne wala ak laaxiratu ak darajaati akbaru tafdilan maanaam ëllëg yomal xiyaam sax ci la gënale bi di gëne ki xam nga lii lépp na bu yàlla doon nit danga nga yàlla moom daa mën a gënale ndax bind suuf si mu gën suuf sële te suuf sépp ñu ko ciy jaamu yàlla bind jàkka yi ak li nga xam ne moo di jumaa yi jumaay màkk gënal ko ci muy kaaba ga ak jumaa jumaay madina moo ko gënal ci mboolem yi mu bind ci yi nga xam ne dañ koy jaamu moo tax wala fii di wax naa suufas marché suufas jumaa li mu gënee suufas marché liggéeyu ko suufas jumaa li mu gënee suufas marché liggéeyu ko te war eh, waxkat yi sax dañuy wax ne suufas marché suufas jumaa bu mu ndamu ci kaw marché ndax lanu liggéeyee jumaa ja ca marché ba la génne kon loolu day wane rek taxawaay bi nga xam ne sunu borom moom moo bind lim bind te lim bind eh, loolu gënal ko ci moo bind li nga xam ne moom laa ko waxoon muy yonante yi yonante yàlla yi yonante ñaari xaritam yi di xalayli alxalayli ñoom ñaar ñooñu di ay xaritam ñoo ko gënal ci yonante yi nga xam ne moom la bind suñ borom bind weer yi weer yi xam ngeen ne at mu nekk fukki weer la ak ñaar suñ borom jël weeru ramadaan mu gënal ko ci muy weeru koor wi ñu nekk suñ borom jël ko teg ko ci kaw weer yépp moo leen gën moo leen gën a màgg ëpp leen daraja ci suñ borom sun borom bind li nga xam ne moo di bis yi waxoon naa ko muy ajjuma ak arafa ñoo ko ci gënal mu bind guddi yi guddi yi xam nga ne guddi yi tamit ci melo yàlla yàlla bi mu bindee guddi yi guddik laylatul xadar moo ko ci gënal ndax guddi googu guddi le goo xam ne xayru min alfi saari guddi goo xamante ni moo gën junni weer yoo xam nit ki daf ko doon jaamu yàlla nga loolu tawféex la moo tax bis yi ak jamono yii nga xam ne yàlla daf koo gën a lente jamono yi ginnaaw waxtu wu nekk ci benn jamono li ñëw moo tax jamono jooju ñu bëgg nit ñi di ci profitoo bu weeru koor dikkee nga profitoo ci jaamu yàlla loo mën a yokk ci sa jaamu yàlla bu dikkee du yóbbaale jaamu yàlla yi de weeru koor buy dem du ko yóbbaale waaye nag weer wi dina promotion bi muy indaale beneen weer du ko indaale guddi laylatul xaddara li muy indaale beneen guddi dootu ko indaale ajjuma bisu su ajjuma waxtu woo xamante ni am na ci waxtu yoo xam ne suñu borom nee na ku ci ñaan mu nangu say ñaan du ci delloo mukk ñaan moo waxtu bu duree ajjuma ci takkusaan ñu bëgg nit ki toog bay fay ay téléphone am toog bu jullee takkusaan ba ca kanam digganteem ak timis mu toog jublu ci sunu borom di ñaan ay aajoom di ñaan ay aajoom bisu arafa bis la boo xamante ni ci at mi benn yoon la sunu borom day wàcc ak malaaka di déglu ñi nga xam ne ñoo nekk arafa ak ñi nekkut arafa ñëpp bis boobu ñi nekkut arafa danoo bëgg ñu koy woor ngir bis la boo xamante ni moo gën ci bisi at ci bis yi guddig laylatul xadar doon guddi goo xam ne xayrun min alfi sar wax naa ko suñ borom di ko kii moo tax suñ borom itam moo bind waxtu yi mu xool waxtu yi nga xam ne mooy waxtu ajjuma moo ko ci gënal maanaam jamono yi nga xam ne ay waxtu la yoo xamante ni ay jamono yu néew la rek jamono yooyu waxtu yooyu waxtu ajjuma moom suñ borom moo ko ci gënal suñ borom bind li nga xam ne moo di at mi at mi waxoon naa ko léegi fukki kii la fukki atak ñaar la mu tànn ramadaan mu gënal ko ci waaye ci bisi at mi tamit mu tànn ci ay bis yu ko ci gënal muy fukki fan yi tabaski yi fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci tabaski yi nga xam ne fukki fan yooyu bisu arafa boobu ci la nekk mooy bis yooyu fukki bis yooyu am na ñëpp dañu wax ne borom xam-xam yi ko mën a woor moo gën ci at mi fukki bis yooyu mooy fukki bés yi gën a tedd ci at mi bëccëg yooyu mooy bëccëg yi gën a tedd ci at mi moo tax suñu borom di ci waat sa wal fajri wala yaalin asri mooy suñu borom di waat moo tax alxuraan fukki bis yooyu la jublu ci wax ko noonu kon mbokk yi lii ci lu gàtt gàtt la loo xamante ni doomu aadama yi war nañ koo xam bu nu ko xamee ñu farlu ci xam ne yàlla jàpp naa ne nit ku lii itteem ci àdduna mooy bu faatoo mooy mu jéem a dem àjjana ji gën a tedd ndax kenn nanguwul ñu ëppale la fii alal nit ñi waxtu wu nekk dañuy kër kër yi kenn nanguwul ñu gën laa rafet kër ku amoon kër xaalis bari kenn du la waaye àjjana jëli jàpp naa ne kenn waru la faa gën a nekk tëdd ci àddina gën a neex bis yi ginnaaw wax na ne la waxtu sàngam ca la waxtu yooyu danga ko war a fuglu bu waxtu keer koor jotee koor yi fi mu toll mi ngi wàññeeku xam nga ne juróom-ñaari ñetti fan yi juróom-ñeenti fan yi nu romb mënatunoo dabu yiw wa amoon lan ci amoon loola lan am kon li nu desewaat ci koor gi nan profité jàng ci alxuraan def ci salaatu ala nabi dogal ci ay nit def ci lépp lu baax loo xamante ni ndax koor a ngi dem de te koor day jeex ni nga xam ne ni la sunu dund gi di jeexe ni koor di jeexe ni la sunu dund gi di jeexe maanaam fan yi fi ñu toll sunu dund am na lu ci wàññeeku kenn mënatu koo dabaat ni nga xam ne juróom fan yi wala fan yi fi as ci mënuñu koo dabaat noonu la sunu dund gi mel mënatuñ koo dabaat kon nanu profito yi nga xam ne sunu borom da koo def moom mi bind xam lépp ne bisi yi ñoo ko gënal waxtu yi ñoo ko gënal waxtu nangu ñaan la wax yi nangam te yëpp da ko tànnal jullit yi ngir ñu xam ko te yëpp mënoon na ko lëm ba ko xam waaye xam gin ko xam dina nu jariñ kon mbokk yi lii daal ay tomb la yu nu doon nab nabi di ko wane ci yi nga xam ne moo gënal sunu borom ñu jéem cee góorgóorlu ku ko man nga dem màkka màkka dëkk bu pàkk bu sell la jàkka jooju nga xam ne mooy jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam màkka jàkka màkka yonent bi nee na ku ci julli benn julli danga am fukki junniy julli madina mun naka noonu kon jàpp naa ne ku fa dem julli fa juróomi waxtu wala nga toog fa aw weer julli ko fa wala ay semaine julli ko fa ah war ngaa dalal sa xel bu baax a baax a baax baax kon yàlla nañ suñu borom may ñi nga xam ne amagunu lu leen fa yóbbu suñu borom may leen fa ñi nga xam ne tamit am nan lu luñ dese ci ay fan yàlla na leen suñu borom may ñu dundal weeru koor wi dundal guddi laylatul xadar dundal fukki fan yi nga xam ne moo nekk fukki fan yi tabaski dundal yi tamit waxtu yi ajjuma yi dundal guddi laylatul xadar dundal yi tamit li nga xam ne ñoo di yonante yi ñu fonk sunu yonante mi salaa salaam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi soxna aw moo nekkoon di réaliser émission bi soxna Xadi ñang moo ko doon monté ñu jox leen daje ci yeneen jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun